Awa Diouf. Awa Diouf yow si marché bi nga yàgg di jaay. waaw ci marché bi lay jaayee waa. naka nga gisee jaayum jën bi ak koor gi. ah jaayum jën bi ak koor gi moom ngi sant yàlla rek waaye doxut moom ndax koo wax mu ne la du ma togg ceeb ci koor gi looloo tax waaye ñu ngi sant bu baax de waaye njaay mi wax dëgg yàlla moom ci koor gi doxut moom. est-ce que nekkul tamit jën yi ñoo cher. noonoo non jën cher na sax waaye koor gi ñu bëri dañuy waxe ñu ne duñ togg ceeb waaw looloo ci joué nag. cent mil franc ben temer quatre cent mille deux cent. boo ko wàññi nga yaa. Ah, waaw benn trois cent am na juróom fukk am na lépp am na waaw. mais mën naa am tamit client yi dinañ ñëw fii ak koor gi di jeex de. Ah, waaw ñun de ñu ngi leen di xaar ñu ngi toog jënd suñu jën toog di leen xaar waaw. am na solo. waaw treize mille. treize mille. waaw. yow na nga gisee njaayum njaayum jën bi ak koor gi. njaayum koor gi daal mu ngi nii njaay mi neexul dañuy teg suñu ñëwee tuuti dem dellu si waaye bu dul koor moom moo dàq koor gi moom wax dëgg yàlla. client yi ñu ngi ñëw wala ñu ngi moom waaw ñu ngi ñëw moom. ñu ngi jënd si. ñu ngi jënd si kon jën yaa ngi dox. jën yaa ngi dox waaye moo gënoon naa dox nii daal weeru kooru ren moom jaay mi doxul waaw changement amul. ahadi. waaw te ñu ngi ñaan yàlla sans mu gën a yokk changement am tuuti ñu ne mu su ko defee bu ñu jëndee jën ñaxam xam nuñ koy jaayee. client bu ñewé bo jëndul jën boo ko jaayee doo génn pertement la lay indil looloo tax dal ñuy ñaan daal client yi dimbale ñëw jënd jën bi. waa jëni yi jëni jën tax li mu ngi jar ci ne ñaar pong bi li mu ngi jar ñeen ci junni waaw lii kees juróom-benn junni lay doon bii ñaar ci junni bii fukki junni. waaye client yi daal yéen a ngi leen xaarandi fi koor gi di dal waye mom gënon na neex daaw. daaw moom moo dàq ren daaw moo dàq ren waaw. client yi dinañ ñëw. dinañ ñëw bu soobee yàlla ndax ñun ñëpp ñu ku ci nekk am sa wërsëg loo yóbbu sa njaboot ndax njaboot bi tax ñuy xëy bu njaboot bi te dina nelaw waaw. soxna si noo tudd. Fass laa tudd. Fass. waaw naka gisee njaayum koor gi ak ak. njaayum koor bi neexul soxna si njaayum koor métti na jënd benn benn la. kees yabay mi nga ko jaay ñetti fan ba ñeenti fan. yabay kese ngay jaay. yabay kese laa jaay ak day jënd fiir waaw. client yi ñu ngi ñëw wala ñëw. ñëwuñu moom dëkk bi daa métti di ñëwuñu. ñëwuñu doo jaay da nga yendu ba ngoon li fi jaay du demee noonu njaayam koor gi dafa mett jënd benn benn la lu ci ëpp ginaar lañu jënd wala yàpp. ah kon client yi daal duñ ñëw si jënd. duñ ñëw si jënd soo waxee ñu ne dëkk bi dafa métti waaye ilaa benn togg la ñu togg dañuy dem jënd ginaar wala ñu jënd benn sàmm jënd fiir guddi gi ndax benn lekk lay doon loolu moo tax daal njaay mi dox. waaw looloo tax njaay moom dafa xaw a naqari bu baax sax naqari na moom. waaye n'empêche yéen a ngi sant yàlla. waaw ah ñu ngi sant kay moom ndax lu met lu kii di nga xaw a fort dara moom dina tane rek moom par rapport a bu koor amutoon moo dàq kon njaay moom moo dàq njaayum koor bu ñëpp woon ci koor moom dina tane mais comme koor gi nii njaay mi dox ndànk ndànk rek. ah xaj na dinañ ñëw xaj na ñu ngi xaar rek. dinañ ñëw sax incha allah. waaw kañ ñu ngi xaar xadi laa jënd ma jën tey. lan moo tax jëndoo jën. ginaar laay togg tey tey weekend la tey samedi la ci ginaar jën yi cher na bu baax la ngay gindee jën gindee ko ginaar togg ba mu baax. yow daal jën yu moo tax jëndoo jën. jënd ma jën ginaar laay def tey tey weekend la tey la samedi lii rek laa wax nag defar ba mu baax rek Sénégal jëm kanam xëy na bu subaa ma def ceebu ginaar ceebu jën bu xonk jur def samay tëll yu baax ñu xool ci waraañi baax na. man Jambal Sall. Jambal Sall. waaw yow yaa fii la waaw sama doomu ndey bi moo fi nekk mooy jaay lujum yi. léegi yow lujum yi mi ngi dox wala doxu si koor. ah lujum yi koor gi daal euh, jën yi doxul lujum yi doxut. Hmm. waaw waaw lujum yi ndànk-ndànk rek ndax xam nga boo wooree ba ngoon léeg-léeg bëgg def say sa sa sa yàpp wala nga def sa ginaar wala nga def sa soos bu yam moo tax lujum yi ndànk-ndànk rek. ndànk-ndànk rek jéeg ji nga xam jaay yi wax rek nee na ñoom lëjum yi jën yi doxul. lëjum yi ñoo war a accompagner. jeex na nag jeex na jën yaa ngi nii marché bi jën yi benn doxu fi benn doxu fi moo tax lujum yi tamit doxul xanaa ay kaani poivron yeeg yooyu yu nga xam ne day ànd ak soos yeeg yooyu waaye lujum yi war ànd ak ceeb looy léeg laa jayeen yi togguñu ceeb kaneen yi togguñu ceeb ñoom yàpp yeeg kii rek lañ bëgg ginaar yi waaw lujum yi yaa ngi nii ni tekk tekkaaral gis nga taabal ji ni mu rafete te jonga waaw nga war a def sa ceebu jën bu baax dem ndar ñibbi si waat si koor gi waaye jéeg ji defuñu ko de jeeg ji ñoom danañ def seeni soos ak yooyu waaye ceeb ceebu jën si la si la bokk de nañu jënd si jën yi di def si lujum yi ba mu baax di togg bu jën penda mbay bu neex la sunu maam ya daan def bu 5 heures nga taal xet gi di di gun guni ah muy baar waaye bu ñu ko bàyyee bëgg a jàpp soos bi rek affaire yi du dox ah man de sama borom kër ceeb la bëgg man moom damay damay damay ceeb bis bu ne sama borom kër ceeb la bëgg man moom dama si boole ceeb bi sama borom kër ceeb la bëgg waaw waaw sama borom kër bi mbubb yi ko bàyyi ceeb rek la bëgg. waaw. tur bi. tur bi Matar Fall la. Matar Fall waaw. naka nga gisee njaayam ndawal bi ak weeru waaw njaayam weeru bi moom daan na neex ci weeru koor bi waaw mais ren moom daa xaw a xam naa ne dëkk bi amul xaalis quoi mais njaay bi xaw na tane tuuti mi ngi tax ndànk rek. yàlla ñun dañoo dem si mbaaru jën ñu ngi client yi jënduñu jën yàpp la ñuy kon ñoom gis nga ñu ñëw fi. non moom ñu ngi ñëw ndànk-ndànk mais daaw la gënoon a dox la gënoon dox ren poulailler moom ñu ngi ñëw ndànk-ndànk xam naa jaaga jën yi moom lu ñu wax noonu la fay demee parce que jën gis nga nii jarul xam naa dëkk bee amul xaalis nag. Ah, waaw gis nga. koor oblige. ah koor oblige. waaw koor oblige koor moom boo wooree ba ngoon jot yàpp rek nga war a mën a lekk si yoon waa li ma foog. boo wooree ba non 2800 rek. daaw na doon na gënoon a yokku quoi daaw doon nañ jaay 3000 mais ren moom 2800 rek lañ def quoi. mbaa yokkoo leen ko par rapport avant weeru koor geeg koor non ñu doon waaw yokkuñu quoi. yàpp xar ko yàpp xar 3000 lay jàpp. yàpp yàpp nag di jàpp. mooy jàpp 2800 quoi waaw. lañ koy wax. Daouda Diallo Daouda Diallo Diallo. waaw. naka nga gisee njaayam ndawal gi ak weeru koor. waaw njaayam njaayam koor bi euh, koor bi mais temps yi nag commencement bi xaw na dox quoi mais pour l'instant nii xaw na wàññeeku ma instant bi nag dëkk bi moo xaw a moo tax moo tax client yi mën ñëw si léegi mais gars yi bëgg nañ quoi mais amuñu loolu la waaw. waaw léegi dëkk waa dëgër waaw. maa ngi jaay yàpp yi waaw. kilo bi pour ñu koy jaay mais taxawul na quoi léeg-léeg ñu jaay 3500 léeg-léeg ñu jaay ba 3000 ah waaw. non bu ñu bokkuñu kër nag mais bii ndax mu jaay 2800 bii di jaay 3500 mais mën waxaale ba 3000 ah a dépend quoi waaw damay livré ay client waaw. waaw client bu woo dama koy livrer waaw lu soxla rek. bu fekkee client yi ñëw sax mun a comme nga ñooy livrer ay client fixe yoo xam ne waaw mais non non ñun comme bu ñu taalee bu ñu taalee bu ñu ñëw marché quoi bu ñu woowee woo woon sama bébé rek bi ba léegi loolu a demee quoi. am na sol ok merci jërëjëf. waaw lan moo tax nga taamu ñëw mbaaru yàpp au lieu mbaaru jën. ah waaw koor gi nag waa dëgg yàlla yàpp bi man moo moo moo gën a de ndax xale yi jën yi ñoom. pour nga togg ceeb duñ ko lekk mais boo jëndee yàpp boo ko toggee dinañ ko jël dinañ ko lekk mais ndawal gi daal moom laa gën a taamu. waa waa cherul. ah cherul noonu cherul ndax sans eau bi ñu ngi ma koy jaayee kilo bi 3200. léegi mbaa ñoom yaakaaroon ne dañ see yokk prix comme avant koor geeg yooyu noonu. non moom li ma doon jaayee rek la may jaayee ndax dama kaa daan jël sama client la ndax damay jaay resto loolu la may loolu la di ma jaayee. merci. waa kay merci. voilà non sant. Diop laa ginaar. waaw. yi ba mi ngi dox ci koor gi. waaw rek. waaw par tuuti tuuti rek début koor moom faaw ginaar dina dox waaye dëkk bi daa amul xaalis moo tax. Hmm. waaw début koor moom ginaar dina dox. ndax moom moo gën si ndogo yi. waaw moo gën si ndogo si. waaw si yi. Hmm. tarkala moo tax nit ko waaw mais dëkk bi nag daa man sama gis-gis daa mel ne dëkk bi daa amoon xaalis quoi parce que ni mu daan doxee wax dëgg fa yàlla. ba ginaar yi cherul rek. non cherul 2503 mètres. man de bu dee man Mara du ma yokk. waaw man moom du ma yokk yenn saa yi nag am yu mag yu mag moom day am yenn saa mais bu mag moom bu ma la wanee ne la bii dafa ëpp 3000 tamit da ngay comprendre xam ne bii ëpp na 3000 waaw. yow ñaata nga jaay kilo soble. kilo soble 250. 250. Hmm. daa wàññeeku wala fa no soble dafa wàññeeku.

sac soble am na vingt cinq kilos am na par par poids peese te bu dee vingt cinq kilos bi instant yi ñu ngi koy jaayee quatre mille deux cent cinquante ñu ngi koy jaayee quatre mille cent bu fekkee da jënd quantité bu bari ñu koy jaayee quatre mille deux cent cinquante bu fekkee kii jënd loo xam ni du quantité la mën nañ la ko defal quatre mille cinq cent bu fekkee da ngay peese kilo mën nañ la koy jaayee cent soixante quinze mën nañ la koy jaayee ah. cent soixante cent départ rek ci quantité bi ngay jënd rek. day dépend soble bi yokkul parce que d'habitude dañ naan weeru ko soble bi day yokk. non soble bi moom pour l'instant nii moom yokkul soble bi moom day dépendre ci ci marché bi parce que marché bi moom mooy programme boppam comme produi local la fi lay jógee ci dëkk bi maanaam te ñi koy def tamit bëri na ci àll bi yokkum soble bi fii ci Dakar fii ci Dakar euh, ku nekk ak sa produit li koy amee. te loolu responsable boobu noonu responsable ARM la quoi maanaam mooy que maanaam war nañu am contrôle bi contrôler marché bi fu mu toll prix ba nit du mën a déborder jaayee prix boo xam ni maanaam danga koy jaay pour teg pour pour def lu la neex quoi waaw loolu moom mais ñun moom toujours rek marché bi la ñuy àndal parce que doon na produit boo xam ni prix bi du biir day xëy wasin quoi maanaam chaque jour ak prix am quoi waaw loolu moom day dépendre ci. ci àll bi rek quoi. même pomme de terre ba tamit. waaw même pomme de terre ñoom. local la pomme de terre bi instant yi nii saako bi vingt cinq kilos lay def ñu ngi koy jaayee cinq mille deux cent cinquante cinq mille cinq cent. waaw ñu ngi koy jaayee cinq mille deux cent cinquante cent. mais yaakaar ngi ñëw. ñu ngi ñëw parce que bu dee moment weeru koor gi nii comme. soble bi ak pomme de terre bi lu ëpp fast food yi ak restaurant yi ñëpp lañ koy def te bu dee weeru koor gi fa su dee restaurant yi ñu sëpp dañuy tëj mais comme ñu ngi jaay daal quoi ñu ngi jaay ñu ngi jaay dëgg yàlla parce que ñun tamit dépendre bi si ñooñu kese quoi ñu dañuy satisfaire consommateurs yi tamit dañuy ñëw fii ñu jaay leen du boutiquier yi ak grossistes yi léegi la ñuy jaay dañuy jaay détail dañuy jaay consommateur dañuy ñëw jënd ñu jaay leen ñu dem soos. Mhm. mais amul waaye par kilo daal di am. si mooy li ma la wax nee naa la bu fekkee ça dépend ci ci bu fekkee par kilo ngay jënd mën na jaam kilo soog. non ñun bu fekkee ñun moom ñun duñ jaay par kilo quoi dañuy bàyyi boutiquier bi mu mën a jaay ah, bi pour mën ci am dara ñun en gros la ñuy jaay boo ñëwee bu fekkee quantité nga bëgg mën nañ la satisfaire jaay la waaw bu fekkee nag détail ngay jënd moom mën nañ la bàyyi détail ñu jaay la quoi. waaw am na solo waaw am na solo waaw jërëjëf <laughs>